al ibadatu xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam asalaamaaleykum yéen waa al ibada xidma seen mbokk Saliou Mbacke maa leen di nuyu di leen ziare di leen sant di jiital ci nuyoo bi ak ziare bi ak cant gi sëriñ xaadim Diop ak sunu ñaari sëriñ xabaan yi xabaan Diop ak xaban sëy ak mboole ñi nga xam ne ñu ngi leen di jàppale ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy defal yoonu murid di ko defal diine ji di ko def ci dëkk bi li rafetlu mbooleem intervention yi nga xam ne itam jaar na fi ma di ci tudd rek sunu mbokk sunu xarit sunu mbokk daara sëriñ Ahmad yi daa wax ju rafet ji mu am ji mu ci wax am na solo lool di sant itam sunu mbokk sëriñ Fàllu Jumaada di sant sunu mbokk sëriñ Fallou Bousso mi nga xam ne moom itam xam nañ ko ci liggéey bi jamono yàgg te bi fi ba fi ñuy waxee yooyu itam xam nañ ne mi ngi ci liggéey bi lislaam mësu ca teg mësu ca teg loxo ndax mësu ca teg loxoom di sant sunu mbokk Ibrahima Sall yoo xam ne ak mboolem koo xam ne rek jël nga ci kàddu seere ci walla nga wax ci loo xam ne buñ ca jaaree danañu gën dimbale ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di wax ne ñun bu ñu yamoon ci wax rek mën naa am dana am ñu ko dégg waaye nag seen intervention yi yéen da ko dolli xiima moo tax na bañ ci jógee ba léegi ku nekk ngi jokkoo ak ñoom di ñu feeñalal bëgg bëgg ak yéeneem ci daara ji kon loolu yéen dañ koy sante di leen ci gërëm bu baax a baax Azhar ni ngeen ko xamee Serigne Mourtala mi ko sosoon ndax naa ba tàyyi ne jullit yëpp taxawoon ñu sos ko moo tax daara joo masaan dem da nga fekk jullit yépp da nga fa fekk tijaan fekk fa xaadir fekk fa laayeen fekk fa leneen naka noonu waaso yi ci réew mi ndax foo dem da nga fa fekk pël wala nga fekk fa séeréer wala nga fekk fa joolaa wala soose wala leneen te ñoo ñëpp dañ daan dund ci jàmm nañ ko waxee noonu amee ci ñuy jàng itam noonu la amee woon ci ñuy jàngale sëñ tu sëñ Murtala lim daan def di daan seet rek ku ko man maa ngi fàttaliku Saint-Louis ko ubbee soixante-dix-huit euh, kañ fa tegoon ci famille Tijaan bu mag la bokk waaye xoolu ci woon ba xam ab Tijaan la wala leneen la waaye doon xool lam doon def ba mën na ko déet naka noonu kawlax mas na faa teg koo xam ne Tijaan la woon di Tukulóor moom itam xoolu ci woon dara lu dul rek li mu koy doyee mën na ko muy liggéey bi euh, Dakar bi ñu ko ubbee quatre-vingt-dix kam fa jëkk a moom bokku doon ci murid yi bokku doon ci tiyaani bokku doon ci benn tarixa te itam moom la mu doon xool ci moom mooy ndax mën na liggéey ba det noonu doon noonu mu doon doxee nag taxoon na kon ñëpp wis woon ko ñëpp ci nekkoon ba tax sax man dama naan al azhar bokk na ci li firndeel di wane yaatu yaatu dënn yoonu murit ak ubbi bi mu ubbi ko ndax néew na daara jooy dem ci Sénégal ci daara yi mel ne azhar nga dem fa fekk fa ñu wutee ni nga fekk maanaam ni ñu wutee xam ni nga fekk ci azhar loolu néew na daara yoo koy fekk kon loolu ngëneel la lu lu lu am ci daara yi ñun nag suñ liggéey mooy sàmmal sëriñ bi ko sosoon loolu ndax loolu itteeloon na ko ñuy wane ne daara ji mi ngi nii daara yi lislaam la daara yoonu murit la ndax ñu ma ko waxee rek moom wane na bu wér wér wér yoon murit wala yoonu murit ñu yaatu dënn lañ bari na luy xew ci réew mi coow waaye boo xoolee duñ joxeeri nan ne ndax Sëriñ Tuubaa jàngaluñu loolu li ñu jàngal mooy foo fekk sa mbokk muy wax laa ilaaha illallaah rek jàpp ko sa mbokkum jullit noonu mooy doxin bi kon loolu ñu ngi koy fàttali di leen sant bu baax a baax yéen waa Al Hibada wal Xidma <coughs> ndax li ñu defal day loo xam ne ñun waroon nañ koy def yàgg dugg ci média bi di leeral liggéey bi nga xam ne moo moom mooy xew ci ñoom waaye nag amoon nañ ci gàtt amoon nañ ci gàtt ñu bu baax a baax wante léeg-léeg mbir it mooy waral mbir waaye kan bas ñi bi mu xewee bañ àgg foo xam ne dawuñu fa àgg tax nañu yëkk suñu kàddu bi ñu ko yëkkatee nag ñëpp wuy nañ ñëpp feeñal nañ seen taatuf ak ñoon loolu nag yéen dañ koy dañ dañ koy sant yéen waa Ibaadu Xidma ndax itam yéen da ngeen bokk ci ñi nga xam ne lu mat a reeteet ci yoon bi dangeen ngeen fexe ba reeteet ko ba ñëpp dégg ko bokk ku ci war am taxawaay am ko ca loolu ngeen ngeen ñu defal loolu nag dañ leen ci sant di ñaan yoon yi ngeen jaar yan leen ci Serigne Touba jàppale. da ngeen àggale liggéey bi ngeen semb fa ngeen bëgg mu àgg fa ndax lépp njariñul jullit yi lañ njariñul yoon wi lañ njariñul dëkku Tuubaa yi la kon ñu ngi leen di sant bu baax di sant booleem jullit yëpp mbooleem taalibe yëpp ndax bañ jógee ci yëf yi ba léegi day waxuma la ñuy woo di wax seen mébét waaye ñuy woo bëgg def ci asar rek maa ngi ciy jot lu bare bare bare loolu nag kon day wane ne li ngeen doon def am ngeen ci am ngeen am ngeen am ci najaax li ma tax di jël kàddu nag mooy comme dangeen ngeen yokk euh, waxtu ngeen jagle doon Azhar nga yokk ngeen yokk ba tey ma jàpp ne balaa jeex nag rafet na walla jaarut na ma jël kàddu sant leen sant mbooloo mi kon ñu ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum seen mbokk Saliou Mbacke Moutoulla